révision ordinaire au Sénégal révision exceptionnelle mooy am hmm. à la veille de chaque élection un mois la un mois xale yi jot majorité mënuñ cee bindu hmm. généralement deux cent cinquante mille à trois cent mille euh, mouvement yi am ci fichier bi ay changement d'adresse lay doon y a très peu de nouveaux inscrits hmm. parce que xale bi quest ki qui se dafay am dix-huit ans Sénégal ñu bëri xamuñ nekk boo boo juddoo mun nga am carte nga ñëw ci commission bi na ma bëgg a inscrire ñu ne la an sa carte d'identité biométrique on ce la commission doit te donner on te le demande loolu Sénégal réclame loolu administration war a jox. ñu laaj la ko nga wax ko dem wuti. nga war a dem police. Mhm. ci centre de traitement de la carte d'identité nationale pour outil fa une carte d'identité où à l' euh, au verso on a mis non inscrit au yow da jàng yaa ngi def terminal wala première wala préparer bac nga jël benn jour ci sa semaine dem commission ba ñu wax la lool le lendemain nga dem police rang ba bugg a dee ñu ne la enrôlé nañ ba pare ñëwal suba doo dellu. Macky Sall a tellement compris ça qu'il a empêché à 47 pour cent des jeunes sénégalais entre 18 et 20 ans de s'inscrire parce que ñooñu ñooy adversaire am. xam na ne l'opposition ne travaille pas sur ça. kon xam na ne ñooñu faraluñ ko. mais bien sûr xam na ko def loolu. Hmm. d'accord xale yi yooxu yëpp kenn ci ñoom amul carte. et c'est pour ça que je dis que l'opposition sénégalaise est paresseuse loolu la waroon di liggéey hmm. loolu loolu moo waroon nekk seen liggéey tous les jours faire de tell sort que xale yi nekk dans le fichier mun a dem exercer le droit de vote. pourtant il y a eu des autour de ça. kan moo sensibiliser. mais waa Pastef yàgg nañ leen dégg ñuy ñaax ndaw ñi pour que ñu dem inscrire. waaw mais boo boo ñaaxee ndaw yi pour ñu dem inscrire ci benn fenêtre un mois. mënuñu inscrire. ah kon dañu waroon xeex pour que révision ordinaire. dañu war xeex pour que révision euh, bi am. am na am na benn cas bu amoon ca Touba. daanaka sax euh, deadline bi nga xamante ni moom lañu lañ moom lañu jàppoon ngir inscription yi gis nañu xeex bu métti moo fa am parce que ñi nga xam ne ñëw nañ pour inscrire ñu ci bari dañoo ñëw dañ leen ne de desoon na donc mu indi fa coow lu rëy ba ñeneen am peut-être yenn euh, euh, crédit yu leen di may yenn pièces yu ñu mun a inscrire ay kii résidence ak ak yu mel noonu parce que demoon nañ fi ba wax nañ bàyyi xale yi ñu inscrire sur la base du récépissé de la carte d'identité buñ boo amee récépissé nga mën a inscrire mais gars yi dañuy bañ hmm. donc euh, il faut que ñu xool les vrais combats les vrais combats se font moo tax ñuy wax processus élection du benn fan du benn fan processus la hmm. et ce processus booy dem élection présidentielle da nga koy préparer sur cinq ans hmm. donc euh, def formation def sensibilisation xam terrain bi wax nit ñi naka la ñuy demee élection naka la ñu war a voter et cetera et cetera lan mooy euh, sa sa sa sa àq ak sa yeleef gars yi dañuy toog ñoom en fait dañuy opposé wu dañuy toog ba waxtu bi jot rek ñu jóg commencé yooxu et cetera et cetera et pourtant ñu ci bëri ci ñoom jaar nañ ci pouvoir bi xam nañ comment ça se xam nañ euh, tous les pièges qu'on peut poser dans une élection parce que Sénégal il faut qu'on le dise une bonne fois pour toutes kenn mënu fi sàcc élection bu ñu doon sàcc élection hmm. du ñu am alternance bu ñu doon sàcc élection aujourd'hui du ñu am équilibre bi ñu am assemblée nationale mais il y a de véritables pièges Macky Sall a décidé que jeunes yi Sénégal du ñu voter il l'a décidé en 2012 il a décidé que les jeunes ne vont pas voter parce que ce sont ses adversaires politiques te ni mu ko doxalee mooy que ne dafa fexe ne du ñu inscrire. yow boo amul carte électeur loo ti wax bu jour élection jotee du mun a def dara. amoo ci benn njeextal boo ci mun a indi. mais loolu euh, normal na. mais ñi ko war a xeex buñ ko xeexul su fekkee ne Macky dafa jël euh, yow fi nga am doole xam nga Sénégal dañu bureau de vote bi 700 électeurs lay am. Mm-hmm. yow fi nga am doole. mu def fa yëpp 700 électeurs moom fi mu am doole mu def fa yëpp 350 ay ay 400 moom votam diggante 8 heures ak 14 quinze 15 heures mu jeex. yow sa bos day dem ba 19 heures nga bugg a prolonger ñu ne la prolongation du fi am. boo xoolul carte électorale bi boo demul jëli sa fichier nee naa la élection locale yi mujj passé cinq listes ñoo jëli seen fichier. mais da ngay dem daaf sur les sept non ci <laughs> liste ba ëpp na set kañ. ah non sax war a voté ñu ne ci kii bi yooyu yëpp am na. waaw bien sûr loolu day am day am da gis électeur nga am sa bureau de vote ci sa carte électeur nga dem nga dugg ci fichier bi ñu ne la sa bureau de vote Matam la nekk loolu day mais loolu da nga koy xool à temps moo tax ñuy wax carte électorale Sénégal dafa am carte électorale xam nga dafa am fichier am carte. mais su fekkee à 15 jours lañ leen di jox fichier bi est-ce que loolu mun na. ça s'analyse le fichier on l'analyse bien avant c'est-à-dire da ngay jël fichier yu yàgg yi doo xaar fichier 15 jours bi. par exemple aujourd'hui le fichier xam nga euh, Sénat daf ne le fichier n'est pas à jour. à jour gaa yëpp yooxu hmm. effectivement le fichier n'est pas à jour parce que ñi mujj a nekk nekkaguñ ci. ah c'est le fichier de 2022. c'est le fichier moom la ñuy liggéeyee actuellement. d'accord yow fichier boobu moom ngay liggéey ba jour bi ñu lay jox fichier bu bees bi nga mettre ko à jour daal di continuer. élection c'est une technique c'est ce qu'on la technique électorale c'est c'est très important. maa ngi fàttaliku ñun élection locale quand les gens nous ont dit yéen liste yi ngeen présenté yëpp yëpp a jàll ma man liste du jaar suma loxo am erreur parce que dama koy def crible cinq niveau de vérification lay def yow mi liggéey da ngay vérifier après superviseur bi day vérifier après man damay vérifier après candidat bi day vérifier donc dafa dafa laaj sérieux du caaxaan du bu boo buggee dem élection di di di def ay yëfu caaxaan doo jàll. alors parce que kiñ ko seqal. ki ko seqal il a été ministre de l'intérieur il a été président de l'Assemblée nationale il est aujourd'hui président de la République te kàccoor la. <laughs> kooku kàccoor yaa ko ñemee wax yaa ko ñemee ah. <laughs> la kàccoor la <laughs> maa ko wax. lu tax nga ni kàccoor la. non parce que dafa xam mbir mi. xam nga ñu bëri ñu bëri dañ ko dañ ko dañ ko teg. ñu bëri dañ ko teg alkaati du bàyyi dóor. ñu bëri dañ ko teg euh, euh, yambar. Mm. parce que physique bi et tout ça. ak noppi Macky Sall bi mu commencé xeex ñi mu ko seqal ni kenn ci ñoom xeexuloon 1984 mu ngi woon université di xeex. Mm-hmm. il était en plein cœur du mouvement universitaire ñeme nag ñeme. Mm. nit ku am fit la. Mm. ma wax leen ko. pourtant on pense nit ku am pit la moi je l'ai pratiqué je le connais depuis 1985. ak une proximité très mun naa la woon ay photo maag moom yoo xam yaramu neen lañ def sol short. ñii hmm? ñii naan Macky Sall amul fit xamuñu ko fit moo tax mu yegg si fi mu yegg si. Hmm. booy xeex ak moom da ngay fagaru dangay ngay teel a jóg. d'accord waaw parce que moom nee nañu euh, bu nekkee deux mille vingt quatre lijjanti na deux mille vingt six ba pare. jeex na. Il prend de fait de la prospective. Il fait de la prospective. D'accord. En 2012, Macky Sall avait cartographié le Sénégal en trois zones. Vert, jaune, rouge. Le vert, c'est pour lui. Le jaune, ñoo ko bokk. Le rouge, yaa ko moom. <laughs> kon séddale bukki la koy def. bu baax maam moom bii ñoo ko bokk. <laughs> wala yaa ko moom te dama koy foqati. dama koy foqati léegi léegi léegi yow yow yow en tant que souteneur d'un candidat nga bokk ci coalition euh, xam li ni mel est-ce que jamono ji yéen a ngi fàggu yéen a ngi fàggu ci euh, pexe yooyu nga xam ne président nga ne président Macky Sall lal lal lal na ko opposition su ma nee opposition bi yéen ci ngeen ñeneen ci ngeen. bu baax sax. mais est-ce que ngeen ci mën a génn mais lu tax ngeen jàll deuxième tour comme yow nee nga xam nga yëf yi ak da nga koy càmbar à tous les niveaux. xam nga pourquoi Mamadou Lamine xam nga tirage au sort la. Hmm. moom lay wax la la grande faiblesse la grande la plus l'une des plus grandes faiblesses bi conseil constitutionnel introduit ci contrôle bi c'est le tirage au sort. Hmm. pour contrôler. oui boo defee tirage au sort nga ne ki njëkk jàll. amul doublon ki ci topp parrain bu ñu fekk ci kële yow doublon lay doon ci yow ma ne on est en train même de violer la loi. Oui. Ah parce que parce que la loi di la loi di clairement que toute personne qui aura parrainé deux listes. Deux listes. est passible d'une certaine Sanction, de prison oui. et d'une certaine amende bu ñu nee doublon bu ñu nee doublon un deux la. yow mënuma nekk doublon ci yow ba ñu nekk doublon ci kële buñ ma génnee ci man bu ñu la génnee ci man dañ la war a génne ci kële c'est ça l'équité et la justice pour ne pas porter à un candidat su fekkoon ne doublon yi dañ ko génnee ci ñun ñi jàll après Boubacar Camara génne ko ci Boubacar Camara du jàll mm-hmm. ñëppay wut kon ñun ñëpp du deuxième tour lañ jëm mais kon est-ce am ko validé bien sûr dina am ko validé ah parce que bu boobaa di dinañ liggéey de telle sorte que comme bu la joxee PV bi ci clé USB bi boo koy xool dañ la naan doublon avec tel candidat dañ lay jox doublon yëpp non turu nit ki ak numéro carte électeur am ak ban candidat nga ko séqal buñ la joxee tamit non non non identifié au fichier dañ lay jox kii bi nga mun a dem tester pour xam lan moo tax euh, boo xoolee doublon yi ki njëkk a jàll forcément il est privilégié ñun on était à la quarante sixième position on a eu cinq mille quatre vingt dix neuf doublons on a eu dix neuf et on devait compléter cinq mille quatre vingt dix neuf à peu près pour yegg quarante quatre mille deux cent trente donc plus tu tu descends plus ngay am doublon plus ngay am doublon Regarde les Abdourahmane Diouf et tout ça, ils ont fait un excellent travail. C'est des gens qui sont très sérieux, qui, qui ont du potentiel. Mais position bi ñu nekk xoolal ay Mbodj. 93e position noo bëggee mu jàll. du jàll parce que le tirage au sort privilégie le c'est c'est un manque d'équité. c'est-à-dire mënuñu bàyyi un délinquant. parce que noonu la ko code bi di définir. quand quand tu commets un délit on t'appelle un délinquant.